Enfin, nous y sommes, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre toute nouvelle émission Géoui Géguinat. À chaque fois, vous avez une discussion, discussion lay donne ak li de partage. Émission bu bes tax la bo xamné wa Wassare News ñu nek indal particulièrement ak tay ji ku xamné mom lañu invité moy Omar le grand journaliste waye timit Omar le chroniqueur. Mom lañu da da tay ci seen émission Géoui. Néna leen Géoui nat lépp ci am waye timit fair play la am ben yon euh, du bokk ak ben yon ak Géoui go xamné moy am ci lamb ji xamné da may xar fa xuuf ak yoy nonu. Da am quelques France parce que ñoom tamit ñun tamit dañuy def loo xam c'est utile encore une plus c'est agréable Omar asalaamaaleykum maa ngi lay nuyu. waaw maaleykum salaam euh, Sène maa ngi lay ziyaara di ziyaara képp ku ñuy si euh, Sène bu baax bi muy Wassare News. géew gi nak moy émission bi nga xamné émission bu bees tàq la buñ daaj paquet géew gi nak fa la lépp di xewé xatar bi caxabal lepp fa lay xewé mais géew gi nak tay dañuy waxtane li nga xamné moy actualité du moment moy actualité politique. Mm-hmm.

Diarra. Euh, comment il s'appelle Mame Diarra ak kii di euh, nu mu tuddati euh, Ahmed Aïdara. Ahmed Aïdara donc ak yenn ñenn ñi nga xam ne si Pastef lañ bokk ñu jàppoon leen jour manifestation yi passé mm-hmm.

ñoo tëdd si lalu hôpital yi ñi nga xam ne ñu ngi bëgg jàmm mënu ñoo am jàmm ya ah, di leen ñaanal fi nekk yàlla may leen jàmm bu baax a baax a baax waaw seen comme ni nga ko waxee muy li nga xam ne actualité du moment ñëpp nga koy waxtaanee ah muy Sénégal muy le monde entier fépp France 24 Euro News ñëpp ñu ngi waxtaanee li nga xam ne moo xew bii Sénégal muy ñi nga xam ne ay opposants lañu woon ay opposants lañ nekk euh, yeewu askan bi yeewu askan bi nag mooy euh, li nga xam ne moom moo gën a nekk représentativité euh, fii ci Sénégal muy opposition bi nga xam ne mu ngi jàkkaarloo ki nga xam ne moom mooy Macky Sall ginnaaw ci loolu nag ñu doon def li nga xam ne moom mooy manifestation 17 juin bi passé gis nga nu mujjee kii di Déthié Fall ñu jàppee ko si buntu siège am fële ca VDN Mame Diarra Fam ñu jàpp ko fële ca

Euh, li nga xam mom moy état du Sénégal muy euh, APR muy ben Bokk yakar mais li wërté woon moy li nga xam japp nañ leen japp nañ leen après bàyyi leen. parce que japp nañ leen bi ñu jappé jàppee war na mot euh, par exemple une semaine. mam Diallo Fam japp nañ ko mu nek ki nga xam mom moy maire de famille nek ki nga xam député la ñu japp ki nga xam ne Fall député la ñu japp le maire de Guédiawaye le nouveau maire de Guédiawaye muy Ahmed Aïdara ñi nga xam ñom ñoom ñëpp dañuy occuper ay rôle yu am importance ci biir Sénégal tay tey ni nii ñu ay n'importe qui loo gisee Ahmed Aïdara nekk le maire de Guédiawaye Guédiawaye Guédiawaye nekk ville bu mag si biir Sénégal Mame Diarra Fam nekk député de, du diaspora Déthié Fall nekk député la moindre des choses ba nga leen jàpp kay war nga xalaat ne ñii am nañu poste yu ñuy occupé wala mhm. am na poste yu ñuy occupé da leen war a bàyyi ñu euh, ñu doxal li ñuy doxal parce que nee nañ manifestation bis bu demee bay am ñu war a jàpp ay nit nañ lañ leen des bi ko même non autorisé dañ ko japp mais fiñ nekkoon ne euh, fa lañ li nga manifestation bi si mujj teel ba nag si leen leen jàpp def mandat de dépôt defeere leen euh, ku nekk ñu ko ñu tribunal bu Dakar Ahmed ko def ko un mois

est-ce que loolu moo taxoon euh, maanaam ñu tegoon loxo. waaw manifestation bi c'était pas autorisé du tout. c'était pas autorisé parce que bi ñu ko waxee ñoom manifestation kenn du ut kenn du autorisation da ngay dem yëglu. maanaam da nga naan préfet bi damay manifester wu yëglu ba pare. léegi manifestation bi nag préfet moo prérogative maanaam moo am disponibilité. Euh, génne force de l'ordre ñu protéger la ba sa manifestation jeex manifestation kenn du ut autorisation biir Sénégal. ak fépp si àdduna bi parce que manifestation c'est un droit garanti par la constitution du Sénégal. c'est-à-dire que loo xam ne da ngay wax préfet bi damay manifester damay manifester autorisé ma. loo c'est garanti par la.

ba sunu liberté ak suñu euh, démocratie di arrière. mais est-ce que si liberté boobu la ñu war a jàppandiku boo war a def lu ñu neex parce que boo xoolee euh, lu tax ni tee leen bu baax a baax lañ sukkandiku si lii di article 80 ak lii di article 90 93 euh, excusez-moi ça veut dire que tey jii nii loi bi maanaam defu rek du ko neex maanaam daf ko teg fu leer looloo war a mu daal di leen teg loxo ñoom ñëpp. non ñoom dañoo article bi ñaari article yooyu nga cité dañuy maanaam li bi wax

di balé foofu non ñu nekkoon xiiroo amul nga amul lu tax Macky Sall à chaque fois ñuy sétlu euh mu fi nekkee ba légui euh, à chaque fois euh, li nga xamné manifestation ça yi ko défé day am problème ça yi défé manifestation day am problème soit da koy non autorisé soit mu bañ ko bañ ko autorisé te autorisation yi mu def sax mën nañ ko compter mais bi Yewwi Askan bi commencé ba léegi lu si bëri seen manifestation yi dañ koy non autorisé mu nekk loo xam ne jaaxal na sénégalais yi jaaxal na àdduna jaaxal na ñi nga xam ne euh, am nañ souci si démocratie ak si liberté mhm. peut-être tamit nañ ko teg fu wóor parce que boo xoolee wax nga ko sànq le 17 boobu avant le 17 mayoon nañ leen nit ñaa di manifesté normalement même fekkee sax coow amul dara amul euh, waaye tamit est-ce que mën nañ nekk réew moo xam ne ak Sénégal fu mu toll nii njëg gi seer nit nekk si préparation tabaski à chaque fois ñu bëgg ñoom chaque vendredi ñu bëgg di manifesté est-ce que c'est normal tamit mais euh, la fin justifie les moyens. Quelle la fin, fin. c'est-à-dire ñoom instant bii ils sont dans le rôle tey jii nii da ngay seetlu bi Macky Sall. seen rôle mooy lan mooy mooy manifestation. seen rôle mooy euh, essayer de mener la vie difficile au président de la République muy Macky Sall. mais Macky Sall moomu réew mi Sénégal la ñoom réew non Macky Sall moomu réew mi mais ñii ñii manifester si réew mi lañ bokk tey jii nii yow yow yow comme man ni ma amee Omar. Euh, droit hein, di Guen, wax li ma neex def li ma neex te du ma du ma du ma du ma du ma yàqal doomu aadama. yow noonu nga amee droit bi. ku nekk am na droit génn def li ko neex. mais lépp na respecté loi bi tey jii tey jii seen kër tey jii man lu ma bëgg bëgg manifester seen buntu kër du ma ñëw seen biir kër di leen teree nelaw. du boobaa man maa tooñ mais fi ñu ko defee soy nag palais sooy nag ville. mais am na ñu fa dëkk. am na ñu fa dëkk mais bi ñu ko autorisé na la mujjee. bi ñu ko autorisé amul xiiroo amul ngaayam. moom laa yow seen à chaque fois du defee euh, manifestation autorisée du am benn problème. mais saa yi ñu defee manifestation no autorisée da ngay gis ne xiiroo bi ak ŋaayoo bi day bëri. ba pare force de l'ordre yooyu muy génn yëpp yëpp yëpp yëpp si manifestation non autorisée. du ko defoon si manifestation autorisée. coow am. mais est-ce que euh, force de l'ordre yooyu ngeen wax à fois ñu ngi koy génne est-ce que amul woon parce que Sénégal à chaque fois ñu koy dégg ñuy wax naan euh, manque de sécurité dafi am. manam amna yene force de l'ordre yo xamante war nek ci frontière donc buñu ñu nee jël force force de l'ordre yooyu yëpp indi leen si manifestation est-ce que du am leneen lo xamné tamit euh, dina ko yaq ci biir Sénégal. non je ne pense pas je ne pense pas parce que non je ne pense pas parce que Il tey foo jëlee kenn foo jëlee kenn déplacé ko yóbbu ko si manifestation am na fenn foo xam ne bàyyi nga mais tey jii nii yow Sénégal nekk na dëkk ba nga xam ne dafa am la quiétude maanaam fii. li ñuy wax violence violence ay cas isolé la ñu am mooy benn nit génn agressé benn nit. waaw ay cas isolé ñoo fépp. yow mos ngaa gis fi am milice fi mus naa am ay milices yoo xam ne maanaam. ñaañu ko yàlla waaw comme ngay dem ay ay yeneen dëkk yi du ma cité seen tuur sax mais yeneen dëkk yi nga gis ne ñii dañoo am ay milices yoo xam ne dañuy yor arme dugg si biir dëkk bi di jaay doole waa dëkk bi est mus nga ko gis Sénégal. musu la am na am le 23 bee passé rek. si. lan moo ko waral 8 mars bi lan moo ko waraloon. boobu de waaw Ousmane Sonko Ousmane Sonko tey jii ñu ñu jëloon ko convoqué ko mu war dem tribunal am na droit jaar fa ko neex bu ko neexee sax mu ñëw ba maris bëtee noonu jaar kër croisement Cambérène dem yoonam am na si droit ànd ak ay nit mais lu tax ñu xañ ko loolu Macky Sall mi ngi koy convoqué yaa ngi fàttaliku jamonoy Abdoulaye Wade fu ko neex la jaar dem tribunal. mais ànduloo ak kenn. mais ça dépend nit ki day am day bëgg ay ay nit dañ koy bëgg ànd ak moom bëgguñu ko duñu ànd ak moom. Mhm. mais dañu koo bàyyi woon mu jaar fi ko neex ànd ak ay nitam dem ñu ñu ñu ñu ñu ñu def euh, procès bi wala ñu def euh, kii bi nu mu tudd convocation bi mu dem jàkkaarloo ki nga xam ne moom moo ko woowoon si jàmm ak salaam dara du dara du xew mais à chaque looy gis day bëgg di dem di génn di dem fu ko neex mais à chaque fois rek daan jàllal fii dafa lii gis nga la bi am moom dafa xëy rek jàkkaarloo ñu barricade ñaari këram mu dem bay euh, dem juma sax en tant que musulman dem juma. Euh, prétexte la woon euh, rek. non prétexte bu la war a jur sax ba léegi wóoruñu ne est ce boobu noonu manifestation bi amul woon kii Ousmane Sonko dina jur juma.

mais dafa am dafa am dafa am sensation am gëm-gëm ne moom day dem julli si jumaa ja lu tax bàyyi ñu ko mu dem julli si jumaa ja du ko neexee sax ñu mu ànd ak ñaari force de l'ordre muy police muy gendarme mu dem julli di dugaat mais dafa ne day génn julli ji ñu ko doo julli ji c'est ça le problème depuis bi fi Macky Sall euh, nekkee man nag du ma sol mbubbu yeewu askan bi wala ma sol mbubbu euh, ki nga <laughs> xam ne mooy pouvoir bi mais chaque personne am na tey di la Diop la dernière fois yàggul Euh, démb xaw ma sam dimanche bi dafa def meeting fële ca géejawaay lan la ñuy wax instant bi nii propagande publique dañ koy propagande boo xam ne day jëmale si élection législative dañ koy tere. Mm-hmm. mais def na def na meeting am est ce que gis nga waa Yewwi Askan bi dem yàqal ko wala dem yàq ko. Mm-hmm. wala dem saaga ko wala def def ko dara. Mm-hmm. dafa dem defi euh, meeting meeting am ba mu jeex tàkk. jàmm ne ñooy lu tax duñ ko may opposition. noo noo déggee kàddu yoo xam ne kii Ousmane Sonko chaque fois da koy wax

musul nek ambassadeur musul nek dara tay c'est un simple citoyen bo xamné il. lolu ban ban différence la am ak ñeneen ni non amna différence. mom du du nekkul politicien. bien nekkul politicien nii. nekkul politicien. man man en tant que Omar. Hmm. mais nek politicien. Omar dama nek ma il y a des gens yo xamné depuis non dafa dafa yow mënoo tok ne. Ousmane Sonko nekk politicien Ousmane Sonko politicien nga ne politicien même du le nom maanaam le nom dafa am euh, dafa xaw a péjoratif tey même yow la nga ne même yow ko politique man man man man man man man tant que homme ah politique la homme politicien dafa péjoratif. lan mooy différence bi. politicien mooy koo xam ne politique lay dundee maanaam addunaam bi yëpp politique la mais Ousmane Sonko c' est un c' est un administrateur tey jii moom dafa def concours ENA réussir. Mhm. dugg ENA liggéey liggéeyam. nekk ci Facebook bi di dénoncer les dérives. Ah, foofu sax day kii ah. parce que ñu nekk pour def pour def ay parcours Ousmane Sonko. Ah. mais des fois sax ci cadre yoo xam ne moo ko doon santaane.

dëkk bi seen dëkk la yéen a ko moom génn leen ngeen revendiquer seen droit. mais moo doon wax bu leen génn. mais génn leen ngeen revendiquer seen droit. daanaka moo doon wax loolu. tey jii dëkk bi yow yow yow dëkk bi yow en tant que yow yow Mamadou Sène. yow dëkk bi seetloo ni dafa arrière. man seetloo ni dëkk bi daa arrière fu mu toll nii. yow tu parles comme chroniqueur journaliste. non partisan Ousmane Sonko. en tant man avant chroniqueur avant partisan man je suis un sénégalais mais un sénégalais averti. Mhm. un sénégalais averti mooy mooy lan tey jii nii quel que soit alpha yow militaire day woote. militaire day dem voté ji militaire laa wax de un day dem voté ji. un policier day dem voté ji. ku nekk am nga droit tey jii nii ni Sénégal di doxee nga wax ci sa xalaat wax ci sa kàddu. nekkul da ngaa far fii wala da ngaa far fee tey jii Macky Sall mënuñu ko bañal li mu def maanaam defa maanaam def na lim mu war a def yëpp maanaam réalisation mi ngi si mais dafa am côté benn côté bu mu bu mu bu mu bu mu daanoo mooy côté humainement humanité c'est-à-dire. par exemple un gouvernement sobre et vertueux mm-hmm. je ne vais pas mêler la gestion euh, du gouvernement avec la gestion de ma famille famille au de la scène. normal. non

comprendre nga man créé yi pour ñi fi nekkoon la OFNAC pour ñun la moom moo ko wax OFNAC pour ñun la du moom moo ko wax de. bi OFNAC génnee ñetti rapport ay rapport IGE épinglé ay nitam ay Cheikh Oumar ak keneen ak keneen lu mu wax yenn rapport yi maa ngi teg sama kut moom moo ko wax. moom moo toog doo duggee si archive bi di ko gis mooy rapport yi maa ma ngi teg sama kut. mais tey jii ñun loolu la ñuy xeex en tant que sénégalais en tant que père de famille lu mu dee dee dee ñun ay père de famille la ñun dañuy jënd ay saaku ceeb dañuy jënd diwlin dañuy jënd lu ne. ñun dañuy dugg si dañuy dugg si hôpital yi dañuy dugg si dispensaire yi dañuy dugg si supermarché dañuy dugg fu ne. c'est-à-dire ñun man foofu fa laa taxawee di wax mais Ousmane Sonko il est dans son droit tey jii nii am na droit manifester bu ko neexee du ko neexee sax tëdd ba guddi ah demandé préfet suba de manifester à partir de 9h a une police ex gendarmerie. mais police gendarmerie ñu c'est mais du manifestation du y manifestation. les dévergondage Madame nga jël euh, affaire di pour qu'est-ce C'est Ousmane Sonko lay parce que chaque fois bu une manifestation une idée, nit wala est-ce que vous avez est-ce que gis nga nit ñu rey ko fi est-ce que gis nga ñu yàq Auchan parce que autorisé la woon non autorisé saa yu amee dina am dérive. mais lu mu bëgg moom tamit est-ce que mën nañu ko autoriser chaque vendredi ñu autorisé la nga marché ak si dëkk bi su mu toll nii waxuma laak ñu naan gannaaw suba lay tabaski wala une semaine moo des ñu tabaski. Ousmane Sonko génn ne day manifester bu ñu ko autorisé bu ñu ko ñàkk bu ñu ko autorisé est-ce que tey jii warul xalaat bu fekkee maanaam intérêt général lay xool

ñépp tamit des jaarale maanaam ñii des jaarale toj bitigu jàmbur oh. ñii jaarale fa sàcc seen ay xar oh. surtout boo xoolee Dakar fu mu toll nii fépp foo dem bâche la hmm. amul sax yoon boo marche yow nga génne da ngay génne nii pour marche waaw loolu moom loolu moom euh, question boobu noonu c'est-à-dire day day dépendre si nit ki koy déglu man en tant que un euh, sénégalais euh, koo xam ne il est non non non non non non non non non non non non non non non non non non non

sans changement changement changement changement manifestation amna ko xamne do ko question bi la no parce que instant bi tabaski dañ instant bi wala ñoo wala ñoo bi mhm. wala ñoo bi wala ñoo genn duñ waruñoo xalaat lenn loo xam ne day yàqal dëkk bi parce que dëkk bi dafa metti parce que tey jii nii imagine ku jëlee xaram Fuuta fare si xaalis bu bëri comprendre jël camion def fay camion fay lépp ñëw fii fay gardinage. fay fay ndox fay courant nga bëgg kaa yàqal loolu noonu ñaata nit ñoo koy xaar bëri na te loolu yëpp Ousmane Sonko si Ousmane Sonko non mais moom maanaam si si Macky Sall si Macky Sall la jëm parce que Macky Sall instant bii ne xaw ma nag fii ak suba ban décision lay jël mais man du ma sañoon en tant que Omar du ma sañoon. Mhm. suba wala tey na génn autorisé marche boobu noonu. tax tax waxoo en tant que Omar su ma sañoon su su maanaam kii Ousmane Sonko arrêté manifestation ba beneen mu doog di ko continuer. mais loolu droit am la. maanaam si son droit loolu droit am la parce que fu mu toll nii dëkk bi mu permettre muy jox autorisation. mais mais mais yow yow imagine yow man sànq maa ngi koy wax sama biir wax. ne la manifeste ban manifestation la ñu autorisé biir Sénégal mu mu mu dégénéré musul am. ok ban la. bii passé yaa ngi dégg am na ñoo xam ne ay. boobu non autorisé la. boobu non autorisé la la waxoon bu ñu bu ñu autorisé bu ñu autorisé. Ah. yaa ngi si dégg ñaar am na ay rebelle. yaa ngi dégg tamit. bu rebelle bi yow rebelle bi yow xam nga nu mu demee. gis nga procureur bi man mii. yow rebelle bi yow xam nga tey jii nii rebelle bi bu jàppee lu mu samay xar samay xar laa jël si. dégg ma rek samay xar laa laa jël si. dégg ma dama dama dama ne la mais loolu mais loolu. dama tu es un si tu es un homme Euh, averti am na yenn discours yoo xam yow en tant qu'intellectuel. intellectuel waroo see c'est-à-dire ñoom instant bi tous les coups sont permis instant bi ni si xeex si guerre. Mhm. coup perdu sax da nga koy jël. dama ne la waaw. Ah. est-ce que yow tey jii mun nga am ay renseignements fii Sénégal ba am renseignement yoo xam ne moo raw yu procureur. man procureur moom ëpp renseignement fukki junni yoon ça veut dire que c'est normal. bu la waxee ne la maanaam am ay rebelle yo xam ñu mais yow yow yow yow 4 avril bi passé 4 avril bi passé. armée toogul ne Sénégal amul benn risque de rébellion fii nii Sénégal. foo mosee gis si foo mosee gis si àdduna armée bi toog naan Sénégal naan sama dëkk am na ay risques. waaw très bien si dëkk. dama ne la yow toog naan naan rebelle laa jàpp. non dama la wax yow laa wax yow si loolu. yow Sénégal bi mu doonee Sénégal ba tey nii mun ngaa mus ngaa dégg procureur toog ne jàpp naa rebelle est-ce que mus nga ko dégg. day si occasion bi pour xam nga pour jàllale ay messages am détourner les. tey jii nii yow Sénégal yow xam yow dem naa man carrément bi ma fay dem pour man <laughs> pour man da ngay toog <laughs> gars yi di la ay ay ay rafal mais damaa dem Casamance booy Casamance mel na Pikine mel ne na Guédiawaye mel na Malika gii da ngay dox ba trois heures du matin wax lu la neex def lu la neex loolu est-ce que am na rébellion yow yow demal si dëkk yi am rébellion dëgg dëgg dëgg dëgg nga dem ay par exemple ay ay ay ay ay RDC Congo. Mhm. des fois rébellion yi. c'est grâce à président Macky Sall. non si du ne sax grâce. liggéeyam la def na ko APC bi ah, ah, moo tax ma maanaam tey jii nii yow da ngaa jël sa da jël sa doole mu jël sama doole keneen jël dooleem ñu boole suñu doole yëpp jox ko Macky Sall Macky Sall walu doon yaafus mm-hmm. walu doon yaafus ah moo tax doonul yaafus waaw walu doon yaafus maanaam loolu noonu liggéeyam la da kaa war a doxal ni mu ko waree maanaam Ziguinchor instant bi nii man man damay jàpp ne Ziguinchor bokk na si dëkk yi gën a sûr

Moi, yow en tant que président de la république ngay jàng ci opposition pour mon a de l'avant Madame, opposition di la wax say faay opposition ne la ah wax dëgg ne yàlla defoo lii defoo lii defoo lii yow doo toogee say ministre génne ay extrait vidéo yi opposition yi di la ay idée nga jël idées yooyu di utiliser hmm. à des fins il y a yow gens qui la jëmale kanam mais opposition du waxee yow yow xoolal léegi rek yow léegi une conférence de presse rek conférence de presse à chaque fois da ngay gis opposition mooy njëkk a def euh, euh, conférence de presse après pouvoir def conférence de presse opposition def conférence de presse pouvoir def conférence de presse te loolu musul woon am Sénégal Sénégal à sa fois da nga doon gis pouvoir moo moo doon diriger moo doon diriger les débats tey pouvoir yow jamono yi Abdoulaye lu muy métti métti métti métti métti conférence de presse yi ni nga koy déggee si jamono bii nii nii chaque jour conférence de presse am na fii am na fii am na doonoo koon dégg si jamono yi Abdoulaye te jamono yi Abdoulaye maa ngi fàttaliku man jamono yi Abdoulaye Wade maa ngi lycée mhm. maa ngi lycée de di def première mais dama doon suivre comme ni gars yi doon suivre information dama doon topp information benn par benn. waaw man ni conférence de presse yi amee ci jamono bii nii doon ko woon amee ci jamono yi kii nu mu tuddi. Euh, Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade mais wax nga ko sànq wax nga ko sànq ne fu mu toll nii opposition bi moom euh, dafa mel ni ñu ngi lay waaye est que tamit ñu ngi ñu ngi jouer bu baax a baax seen rôle. parce que bu xool opposition rôle am dëgg mooy maanaam bu fekkee. maanaam ku nekk si gouvernement bi wala nekk si nguur bi defal lu yoon mu leen carrément li ngeen def du yoon waaye tamit mu jox ay proposition waaye ñi moom ba léegi mosoo gis benn yoon ñu wax la ay proposition non ak xam naa peut-être ak ñoom seen seen seen seen façon de faire ak seen façon. façon de doon li ma tey jii nii comme la flambée des prix. non waxuma waxuma lu ngeen digal de. dama ne est-ce que ñoom ñoo seen ñoo laa la wax. maanaam instant nekkuñu seen nekkuñu seen rôle man du ma du ma du ma wax nit ki yàlla nga lay nuyu te gisuma yàlla man lépp li may wax dama koy wax wax sama diggante yàlla ak sama akulaay taala man damay wax liy war a nekk maanaam tey jii nii la flambée ñoom nañ toog indi ay ay proposition ak monde fu mu toll nii sax monde bi instant bii nii yow imagine guerre euh, russo bi instant bii nii tax na lépp euh, basculer tey jii nii doo yow lépp li même même ñiy jaay. lu basculé basculé kii di président Macky Sall waxuma la sax président Macky Sall président du Sénégal rek waaye président de l'Union africaine moo ngi def lu doy waar loolu liggéey bu rafet bu rafet lu bu baax a loolu tamit nga wax. en tout cas instant bii nii liggéey bi lu mu rafet rafet rafet ñun sentir guñ ko. sentir guñ ko suñuy suñu suñu suñuy suñuy. da ngaa yow sentir suñu solo. sentir nga suñu lekk. sentir guñ ko suñuy suñu suñu sécurité. bien sûr. yow yow sentir nga ko si sa lekk. bien sûr da nga naan waxuma la waxuma la sa lekk mais fépp. <laughs> sentir nga ko si sa sécurité yow yaa doon wax sànq affaire affaire de xar gis nga fu Sénégal xar nu mu seeroo léegi mu commencé wàññeeku donc si lekk bi la bokk. mais bokkul loolu loolu c'est. lo, xam ne loolu xam c'est waaw c'est aléatoire. mais loolu c'est aléatoire Lo, nekkul tey jii nii maanaam du ma ne si lekk bi mooy par exemple yow li ngay dundee chaque jour café meew beurre ah, nu mu tudd ceeb diwlin gaz. lépp lo, xam ne denrées alimentaires yi fa laay waxee waxuma waxu ay tabaski loo xam ne benn jour. ak ki la faute. maanaam même du nekkul faute bi si moom. même nekkul faute bi si moom tay di yow mom amna amna amna amna amna ki bi num mu man man bi. Mm-hmm. am amna am sañ-sañ bi. Mm-hmm. génné ben somme bu rëy bo xamné tay di ni da koy da koy da koy da koy dégager ci budget du Sénégal. Mm-hmm. subventionné. mais tay di ni subventionné. subventionné yo ministre ministre du commerce dernièrement la génné né na d'ici peu kii dina wacc prix dina wacc mais bobu tay bobu tay ba tey yow tey jii nii sax naanaa bi doon jar juróom léegi fukki dem lay jar. naanaas bi doon jar juróom fukki dem lay jar. meew bi doon jar cent franc cent vingt cinq lay jar. est-ce que loolu citoyen lambda moo ko yokk tey jii kan citoyen lam daay parce que booy xool subvention yi ngay wax kii di président Macky Sall def na subvention yooyu noonu bu fàttali ko yàggul dara la tàgg ak kii di président président russe hmm? waxtaan ak moom si gis na si wàllu bële yëpp ba fu mu toll nii maanaam Afrique waxuma la sax Sénégal mais Afrique de l'Ouest yëpp fu mu toll nii bële baa ngi commencé dugg si bu baax a baax seen waaw man loolu laay ñaan te bu te bu fekk woon moom maanaam prix yi a ak taal ay. ak taal ak poro opposition contrairement ak opposition kenn opposition du nekkoon opposition opposition kese kenn du dee. opposition saa yu dee amee rek dafa am kuy ku nekk si ginnaaw di tiire. waaw. Ah, kii ñuy ñuy tiire ñuy kat mooy tiire. yow xam nga kiy tiire. ñooñu yow kiy tiire la plupart du temps police ak ñooy tiire. kon nga bëgg jàpp ne police ak gendarmerie ñoo lay ñii. non même du leen même du fekkee sax reyuñu leen. mais li ray si ñom lay jógee. ñan si ñan. police ak gendarmerie. mais c'est impossible c'est contradictoire li du wax On wax ne police ak gendarmerie que ba pare na ñuy ray si ñom lañ jógee. non déggoo la wax tey jii du fekkon dé, fekkon dé ñu ne kii nit diw diwoo ko mhm. bu xam xam di nga xam diw diwoo ñu ne peut pas moo ko Madame, ko xam vous instant mëno accuser nit manam police wala gendarmerie ñu ray nit directement. kon bu wax né opposition ray mais da nga yow yow yow bii passé gis nga gis nga waa ji dee waa ji dee Masaalikul Jinaan gis nga waa ji dee Masaalikul Jinaan hmm. est ce que que kooku gars yi ñoo ko fekk fu mu toog ñu taal ko mu toog hmm. mu mais accident la woon. non non xam ne xam ma accident ah mais tey jii du amuloon du amuloon mars hmm. kenn du toog ke maanaam waa ji mun na nekk si quiétude maanaam mun na nekk si jàmmam si salaamam toog. parce que Sonko moo woote moo tax. waaw mais Sonko du woote kan moo ko jox kan moo ko war jox autorisation. du préfet le préfet préfet kan mooy njiitam du gouverneur gouverneur kan mooy njiitam du président de la république na na joxe autorisation bi bu joxee autorisation bi gars yi marche masse bu civilisé bu baax bu bu bu bu tegu si temps ah du am rey du am dara duñ paree li li ñuy takkal foofu yëpp ñu ñu ñu ñu ñu ñu for ko ku ne ñibbi si jàmm ak salaam. man Sénégal loolu la xam Sénégal xamul xeex amul xamul xuloo Sénégal xamul Sénégal le Sénégalais n'est pas violent.

wala préfet dafa war a di um, autoriser manifestation bu mën di am maanaam Sénégal chaque vendredi na na na na wala chaque mercredi wala chaque samedi na opposition bi génn manifester wu. donc waxuma ne sax waxuma ne sax opposition. maanaam loolu c'est un droit garanti par la constitution du Sénégal chacun a le droit de manifester n'importe quelle heure maanaam nit ki mun na jug sax guddi comprendre mu am lu ko metti mu taxaw so jël jël maanaam takk takk morceau bu rouge taxaw biir këram forme de manifestation manifestation nekkul da ngay ñëw rek taxaw si mbedd di di yuuxule mën nga sax tey jii man dara mën na ma métti ma taxaw sama balcon takk lu ruus taxaw. Mhm. loolu du forme de manifestation. Mhm. manifestation nit qui, mën na manifester si si fànn yëpp. mais bokkul ak ñun yow tey jii sax yow même mën nga def sa émission wasaare wa nga am problème ak wasaare ah ngay def ces émission T'as sa lu ruus. Mhm. yow loolu forme de forme de manifestation la. manifestation nekkul loo xam ne c'est tout à fait violent manifestation dafa bëri forme dit, ni. nii ku nekk day choisir forme qu'on est neex acte man du ma choisir forme rassemblement du ma choisir forme grève de la faim du ma choisir forme damay me ba comme ni ko japonais yi defee damay liggéey du fekkee 17 heures la ñu wax laay wàcc ma liggéey ba ba ba ba ba 20 heures wala 21 heures wala 22 heures comprendre nga du japonais ont manifesté, ils ont manifester ñoom surplus. Madame leen bi leen wax ngi leen duñ ko surplus Ils ont gagné duñ duñ 100 100 produits ñu gagné 200 produits ils ont perdu.

liberté nationale, c'est ban fànn. Madame, bu ne waxee manifester comme ça ni ñu koy à chaque fois bu ñu manifester mais affaire des ëpp Oh waaw madame, il y a eu man du ma leen du juger, leen jugé du ma leen wax par exemple euh, li ñuy def libertinage wala liberticide wala liberté leneen mais en tout cas dal, man li liberté woo ils, ils ont déjà donné l'exemple. ils ont déjà donné l'exemple pacifique. def nañ def nañ manifestation ba mu dire, tac amul xuloo amul xeex ñu pare fox këyit yeeg mbuus yeeg yow gis nga ko ci réseaux sociaux yi. jàppale fi war a changer lii stratégie bu ñu xoolee maanaam conseil des casseroles bu xam ne organisé woon rek defoon nañ ko dem nañ buntu palais sax di ko fa def maanaam Dakar yëpp def nañ ko fa maa waxuma sax Dakar mais Sénégal yëpp def nañ ko amul benn coow. amul benn problème président de la République wax. loolu loolu loolu loolu foofu police génnul. lakk na ma seen police génnul lakk na ma seen génnul isa japp won fu mu toll ni mais période bu toll ni xamne période tabaski lañ jëm ku nek xar nga talu ak leneen est ce que woru ñu def yeen forme manifestation yi mo gënon di gëna nit ni ba sax amna yeen site internet yo xamne ñu ngi gën sax di wax nit ni ban stratégie ban stratégie lañ wara def pour dëkk bi tak ah man dama sa di gën parengel pour ta dëkk bi yeen ñu nek man mom bëgguma dëkk bi tak parce que sama jabar fi la nek ak sama sama mbokk ak ak ak ñu bëgg ak yow mi sa dama la bëgg ah ak mbacké comprendre nga bugguma dëkk bi tak deug bi také man duma duma mëna ma ci a nekk yow do mëna a ci jamm do mëna jël bus euh, dem fi la neex wala taxi fi la neex wala man jël bus wala ma ñëw liggéey si du baaw suñu kër suñu kër lay tok te weer bu dee kenn fay man man dal dëkk bi na bëgg na ñom ñu def seen manifestation ma ngi demander ki nga xamné moy président de la république de tous les sénégalais instant sénégalais yépp moy suñu président mu di ko demandé na autoriser li nga xamné mom moy mars bi nga xamné ne Yewwi Askan bi dañ koy def le 29 jamm na ñoy kenn baña togn tooñ kenn bañ a nit ñi def seen manifestation ñibbi si jàmm ak salaam man loolu laa bëgg. li ñu joxoon si waxtu daf mel ni fu mu toll nii bu amoon kàddu yoo xam ne peut-être moom ngay tëjee. waaw di la remercier bu baax a baax si sa si sa question yi nga xam ne pertinent na trop euh, macha allah euh, yow mi nga xam ne tu es toujours euh, ouvert nekk nit ku baax waaw.

Maintenant, il est temps de donner du temps aux autres paradigmes. En attendant, je vous conseille de manger beaucoup de bananes. Ciao